pour protéger toutes les entités je ne peux pas comprendre qu'on soit dans un pays où l'État veille sur le prix du riz du sucre de l'huile des transports sans que nous un regard sur la stabilisation du prix du loyer parce que quand on parle de justice sociale nous ñu nit ñi rek victime des lois du marché nous ñi di spéculer nu et je pense que le président de la République a pris la décision un décret qui réglemente en fonction des zones plus ou monsieur le ministre nous, avons une population très jeune une jeunesse très courageuse ñi nekk àll bi di bay ñii nekk ci tali di jaay ay mbuus tàngal lu ne et ñooñu ñëpp ils ont besoin le soir de dormir tranquille tranquillement devrais-je dire am de jeunes sénégalais yu am full ak fayda am teel a jël responsabilité di ko assumer nekk de jeunes pères de famille am njaboot gu taxaw seen ginnaaw ñu yor ay salaire yu leen permettre ñu mën a à partir du 20%, frange de cette population les li de sen esprit moy fait une location sans parler aussi de ces personnes intermédiaires yi ci nek qui vois quelqu'un 400 000, 300 000, am location ñu 100 000, il te faut 3 mois de caution nga nek ci kër pendant 7 ans di borom kër la ko duggé won loolu je pense qu'il faudrait que l'État prenne ses responsabilités protéger ces sénégalais lambda yi nga xam ne soxlawuñu sàccuñu defuñu lu bon liggéey lañuy de def bëgg fuñ teud ak seen njaboot buñ xëyee dem liggéeyi participer au développement de notre pays man de loolu rek mom moy suma souci parce que à chaque fois ku génn sax dem ban ban lay génné ak ni lay génné je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse sur ça pour essayer de trouver même avec des jeunes yo xam mettre en place une agence bo qui serait créée et portée par l'État mu donne des jouer médiation entre locataire et ak bailleur bi ba nga garantir ba nga ne ni leen di du am fi may terminer rek moy Sacré-Cœur monsieur le ministre dafa un cadre de vie bu am solo bo ay cadre yu mag ñoo fa nekkoon dëkk commune mairie a na cadre de vie ba daf ko transformé ak ay bazar les deux voies des Sacré-Cœur boko ko niñ ko tasee ay boutique ay bazar kese lepp lañ fa def ñom li leen intéresser rek moy ticket bi comment dire taxe bi au détriment de cette population je pense que nak nit ki su démé ba jël alal ju bari joolu jëndé ko ci zone yoyu warna bénéficier d'un cadre de vie sain bu koy permettre mu éduquer ses enfants nous mun jang dans la quiétude pour être vraiment euh, euh, manadal am am mais niñ ko défé chaque jour les gens sont envahis par des badauds yo xamné ci dañuy euh, couvrir de ce manteau là de vendeur entre autres yi nek fofu. et le maire bi fi nekkoon déggoon nañ ko fi fi mu wax fi né da koy casser lépp mais ndekete yooyu da leen doon pour indiwaat ñeneen ñoo xam ne ñoom jox il va falloir que vous regardiez de plus près cela parce que deux voies ci ci axe yëpp ay concessionnaires ñoo fa nekk ay jaaykatu yoo xam ne ci seen biir xamoo loo fay def xamoo lañ fay def je pense qu'il faudrait que nga xoolaat loolu loolu laa bëggoon di la wax di la encourager di la féliciter ci toutes les initiatives yi nga jël en tout cas di revenir que le président de la République a pris la décision te cër bi nga am moom moo la ko jox travaillons à ce que son projet là soit matérialisé de manière rigoureuse et vigoureuse merci